boo leen bëggee am mbooleem vidéo yi bàyyeekoo fii ci Istikhama TV da ngeen di bés fu ñu bind abone bu leen fàtte bés fu ñu def cloche bi foo leen mën a ci àdduna bi ngir ngeen mën am mboolem vidéo yi fi bàyyikoo bismillaahi rahmaani rahiim alhamdulilah sant yàlla bu baax di leen gërëm ci seen taxawaay yéen ñëpp ci waajtaayu magal bi comme ni ñu baaxoo defee <coughs> euh,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 bu bàyyi ko ci lépp luñ ci jàpp ne dina na ko yokk ñu yëgle ko lépp lu ñu jàpp ne lu manqué la wax nañ ñuy euh, rafet njort rek ci ne des na yeneen i ndaje yu yu bari ci kanam des na ñetti ndaje ci kanam te bu ci nekk suivi rek lay doon ci.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 am nañ jiitu réew bu bees am nañ gouvernement bu bees te lu bees lu ñëpp bu ñëwee dana bëgg a wane bopp dafay nañ jot yi ci ne Màggalu Tuubaa événement la bi gën a rëy ci événement yi nga xam ne euh, occasion la ci ñëpp képp koo xam ne kilifa nga ci réew mi nga man ci wane sa bopp man ci wane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 ndax taraanga ju mën a doon balaa neex rek dox te caab mu soog a mat ma jàpp ne day warteef ci nit ñi ñu waajal seen bopp ñu ci dëkk ci mën a am basin walla def kaayu ndox nu mu mën a mel ay réserve su ko defee matuwaay yi ca war ngir ñu man leen a may ndox suñ ci waxee autorité yi daañu ñu ci mën a jàpp nga xam loolu dafay war a jiitu màggal dana tax bu màggal gi ñëwee ñu wutee ndox ñi koy soxla mooy gën a néew xëy na ñi ko ñi koy soxla wut mooy gën a néew ñi koy soxla te boobaa réglé problème ndox yi ci liy gën a néew loolu réglé ci waaw c'est c'est vrai que réunion bi moom gudd na waaye nag liñ fi doon wax lépp lu am solo euh, xew xew bu toll ni màggalu Touba waaj ko du caaxaan loolu lu méttee méttee métti la donc onze heures la ñu tàmbali yaakaar naa sax heure bi waroon naa bañ a fekk lu bari waaye euh, li ci am solo rek mooy euh, ci wàllu ndox mi waxoon naa ko sànq. Euh, fan yi weesu muy àllarba bi passé def nañ fi benn réunion bu mag boo xam ni directeur général OFOR ngi ci woon ak kilifa yi nga xam ni ñoom ñoo ŋànk wàllu ndox yëpp bi ñu ko defee jang euh, diagnostiqué woon nañu problème bi xam problème bi lan la ba ñu jëloon fi ay décision décision yooyu tàmbali nañ leen a mettre en œuvre te gis nañu ni wax dëgg yàlla fan yi ay retour yu bari maa ngi koy am yuy wax ñu may wax ni ma dëkk sàngam day ay at a amul ndox wala ay weer a ngi nii amul commencé na waaw teg ñoo ñu ngi koy teg ñu ngi koy teg am na forage yoo xam ne déjà raccordé nañ leen ci courant bi am na yoo xam ne nii teg nañ fa ay groupe en attendant ko courant bi ñëw mais de toutes les manières situation bi moom ça s'est amélioré loolu moom ñëpp seetlu nañu ko te loolu lañuy ñuy continuer parce que li ñu nekk di ko def nii dañ ko wàññi dañ koy jëmale kanam ba fii ak ci affaire courant bi aussi euh, euh, chef de service bi jël na kàddu wax na ci loolu Euh, li nit ñi doon wax rek mooy ñu yokk poto yi def ay extension ak yooyu yooyu yëpp ñoom ñoo ngi ci woon dañ koy yokk rek fekk màggal bi bu soobee yàlla yaakaar naa ni euh, fépp fu war a am courant dina ko am euh, beneen bi nga xam ne nii aussi ñoo ko doon ñaan mooy ñu moytu coupure am fi mise hors délestage loolu Sénélec wax na ni d'accord na ci dina def ñaar fukki fan yoo xam ni en tout cas ci avant ak après màggal bi ci digg bi màggal gi bu nekkee ci digg bi. waaw Ageroute euh, dëgg la mu gars yi xaw nañ dal ci koom bu baax a baax mais man dama leen di xaw a comprendre parce que dafa am loo xam ni euh, décision politique la laaj directeur général Ageroute am na décision yoo xam ne moom man ko jël parce que yaakaar naa exemple bi ma ci joxe woon mooy ndox mi keroog bi ministre bi ñëwee fii yaakaar naa ci la problème yu bari commencé saafara léegi li ma waxoon mooy ñun comme xam nañu situation boobu c'est vrai dëkk bi bari na ay nids de poule loolu moom ñëpp xam nañ am na ay yàqu-yàqu yu bëri yoo xam ne am na fi mais ki ñu fi yabaloon nee na moom am na décision yoo xam ne mënu ko jël bu jógee fii dina rendre compte à son directeur général ñun aussi bu ñu jógee fii dinañ rendre compte à l'autorité politique bu ko defee ñoom ñaar bu ñu defee synergie yaakaar naa solution mën na am ci problème situation bi fi mu toll mooy ay weer ci ginnaaw Hainan Chine dafa xawoon a taxaw ci liggéey mais ministre bi mu fi ñëwee ñu wax ko situation bi am na lu jot a dugg lu ko jot a jox ci xaalis ba ñoom tàmbaliwaat nañ liggéey yaakaar nañu ni loolu bu continuer balaa nawet bi mun a am beneen ci wàllu wàllu bëggee am mbooleem vidéo yi bàyyeekoo fii ci Istikhama TV da ngeen di bës fu ñu bind abonné bu leen fàtte bës fu ñu def cloche bi foo leen mën a ne ci àdduna bi ngir ngeen mën am mbooleem vidéo yi fi bàyyikoo